alors jërë ngeen jëf mbokki internautes yi nga xamante ñoo ñuy bàyyi xel fii ci Allô senegal ak ki nga xamante ni moom mooy Info 7 TV naqar ak tiis la ñu yeewoo dañ naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li tax mooy dañoo yëg benn xibaar démb ci guddi fële ca Touba ñu def suñuy jéego ñëw ba ci dëkk bi nga xamante ni moom moom mooy village bi concerné coowal Baye Fall yi nga xamante ni kenn la ñu faat ci ñoom ñu ne mu amoon benn jaamaarloo seen diggante ak waa village bi tey nag dañoo ñëw ba ci chef de village bi ki nga xamante ni këram la mbir mi xewee ngir ñu waxtaan ak moom taataan si xibaar yi nga xamante ni moom lañ fi mën a jëlee nu mu demee ban heure la ak naka la nga xamante ni noonu la ñu faatee ki nga xamante ni moom lañ naan Baye Fall bi dañ koy bàyyi moom suñu sëriñ bi suñu imam suñu kilifa chef de village bi mu daal di nuyu mbokki internet ñu daal di xuus ci waxtaan bi papa nuyu nañ la. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñun ñooy leen gërëm di leen sant di leen mas ci woon Euh, maam ñun moom ñun moom yëf yi dañoo bett moom dañoo tëdd ba ay onze heures euh, minuit mooy rek euh, yu mel na kiin bu taw ci biir kër gi oto oto yu ëpp juróom-ñetti oto yooyu rek ñu ci wàcc wàcc tasa tas ci biir kër gi. oto yi Baye Fall. oto yi Baye Fall waaw oto Baye Fall yi. ay ñaata ngeen war a wàññi ci Baye Fall yi ñaata lañ war a mat. mënuñu ko wàññi mënuñu ko xayma mënuñu ko wàññi ndax kër gi daa fees dell kër gi daa fees dell. man ay yuuxu ñoo ma yee. lu lay mandaar ni luy mandargal ni ñoom ay Baye Fall lañu. ah yére yi yére yi yére yi ñu sol yére yi Baye Fall lañu sol. Mm-hmm. ak ak seen seen seen euh, lett yooyu. Mm-hmm. ñooñu ko fiir ne la Baye Fall lañ. Ah, loolu moom biñ génn rek moom moom sa sa sama rakk lañu lañ njëkk a ñu ñu ñu ñu ñu daj bu ubbi bunt bi. ñu ne ana yi fi ne. génn leen ñu ñu rey leen. Mm-hmm. yu jigéen yuuxu man booba laa yeewu. ma tas ma tas tase ñoom ci buntu bi ma kuur kuur la yëkkati moom moo moo moo moo wër si ma moom Baye Fall Baye Fall waaw bu ma amuloon bu ma amuloon moo ko moytoo bon bon leneen la ñu wax mm-hmm. waaw xamoo ba xam daa am ñu doon dàq ñu dugg ci kër gi wala lan moo dañoo jékki-jékki rek dugg ci kër gi ci seen coobare moom kay ñun dañu yëwri fekk kër gi fees dell dañu fekk ñu nelaw mm-hmm. dañu fekk ñu nelaw xaw xaw ma ban côté lañ dugg mm-hmm. xaw ma ban côté man dama ay ay yuux ma ne ñoo ma yee ñoom dafa amoon lu ñu fi doon wër dafa amoon benn euh, intervention bu ñu fi doon def si wala lan lañ doon def si dëgg-dëgg ci kër gi. waxuñu ñu lu ñu wër waxuñu dara ñoom daal di xeex xeex lañ fi ñëwee. waxuñu ak ay armes ak seen i ngànnaay seen i ngànnaay seen i ngànnaay lañ yor ngànnaay semmiñ ak i jaasi ki paaka. ak ay kuru baay faal. Mhm. loolu ñoo la ñoom ñoom ñoom waxuñu nangam lañ wër de. Mhm. waxuñu poon lañ wër waxuñu yàmba lañ wër. Mhm. ñoom de ñoom de jékki-jékki rek di dugg kër ku ku ku génn rek kóoluñ jigéen kóoluñ dara ku génn rek boo boo boo ñu ñu àjji la. te dañoo déggoon ay xibaar ñu ni fii ci diwaanu Touba sëñ bi dafa am ay tere yu mu fi doon te dafa am ay règles yu mu fi teg dafa am doon tere est-ce que du dafa am kenn koo xamante ni dafa bokk ci kër gi di def lu ñuy tere wala muy sol lu ñuy tere. man moom man moom man moom man moom kere bi soo sëñ bi joxe ndigaal kenn ku ci ne taxaw naa ci sa buntu ma ma ne la sëñ bi woote na nee na nanga day nangam da koy bañ nangam da koy bañ man moo man moom man moom loolu laa man waaw loolu laa man moom man moom yëgal naa ñëpp ñu ma war a yëgal man nag loolu man waaw loolu daal laa man loolu man man tukkuma musuma tukk musuma naan waaw musuma tukk musuma naan xaw ma lan lay saf sax mhm. musuma koo def te loolu itam amul ci kër gi ci kër gi amul ci commandant bi mu ñëwee kër gi yëpp visite nañ ko ba ba ñu daa dara lañ fi gisul mhm. gis ñu fi ngar naay gis ñu fi poon gis ñu fi dara mhm. mu mel ni sax dañuy wax ni loolu agression la doon lay nduru si wala sax euh, def jëfu ñaawteef moo leen moo leen moo leen yëkkati ñun moom agresse lañ lañ ko mën a def hmm. lañ ko mën a jàpp ñun moom agresse lañ ko mën ku ñëw ci yow ay ay minuit hmm. fekk la yaa ngi nelaw kooku kër gi ñëpp tëdd fekk ñëpp tëdd ñun moom agresse lañ ko mën a jàpp hmm. rey rey nañ ci ñetti béy yóbbu nañ juróom fukki kar ñu sew ko seen oto dem juróom fukki xar mooy cinquante xar ak ñetti béy waaw ak ñetti béy moom dañu dee waaw ah. ñoom biñ ñëwee fi nii dégâts yi loolu kase la wala des na ay matériel yoo xam ne yàq nañ ko fi wala xaalis boo xamante ni jëlee nañ ko fi wala nit koo xam ne tamit gaañ nañ ko fi sama sama rakk bi sama rakk bi ñu bi mu ubbee ko fogg yee kuur ba ci ci bi mm-hmm. mu ngi nii soog a jóge jànnatu caméra mu ngi yoroon caméra mu ngi def cent cent quatre cent cinquante mille mm-hmm. noonu lañ ko yóbboo xaalis boobu anam xaalis boobu dégguñ boobu boobu xamatuñ ci dara. Mhm. waaw. léegi bi mbir mi amee. Mhm. ñu naan am na bakkan bu ci rot. naka la demee ba jàmmaarloo am ci ba bakkan rot. ñun ñu xamuñu bakkan bu rot ci biir kër gi moom. bakkan rotu fi. Mhm. ñun gisuñu gisuñu bakkan bu rot gisuma ku dee. gisuñ gisuma man moom gisuma. gisuma man daal loolu laa mën a tee. kenn deewul ci biir kër gi daal. man moom sama kër gi laa lañ doon assuré génnuma kër gi. ñi ma àndal kenn génnu ci kër gi. dama leen yow kaa bu leen génn kër too ci kër gi lu lu lu lu ñëw fekk leen ci biir seen biir kër waaw waaw kenn génnul kër gi kenn deexu fi ci biir kër gi nag man xaw ma ku rek rey xaw ma ku dee xaw ma yoruma feetel yoruma yoruma da gone gone nag bu fekkee ay jaasi gaañu ñu gaañu ci ay jaasi gone moom am na yoroon ay jaasi moom waane feetel waa kër gi am nañu ci yoroon jaasi jàmmaarloog ñoom waaw waaw day ñooy ñooy ñooy ñooy assi ñooy ñooy faag sécurité seen bopp liñ li liñ doon ñoom ñoom dañ doon eh, dañ doon défendre seen bopp mhm. dañ doon défendre seen bopp ñoom ah, loolu xam naa yoon am na sax ñu ko ciy tuddee légitime légitime défense ndax sa kër lañ la fekk agressé la yoon la nga riposter protéger sa bopp protéger say alal ñun moom ñun moom ñun moom suñu suñu suñu alal ak ak ak suñu bakkan lañ doon protéger mhm. waaw waaye gisoo ni Baye Fall yi ñi wala sax ñi ni ma leen mën a tuddee mooy ay Baye Fall donte ko sax duñu ay Baye Fall ci ci ci mhm. waaye gisoo ni am na kenn koo xam ne gaañu woon na ci ñoom ba ñuy dem wala kenn. teguma ci boot ku gaañu wala ku wala ku dee te man man man bi bi bi ñu àgg engagé néeg yi ba ñu génn leen. boobu lañ boobu lañ génn daw. boobu lañ def tasante euh, euh, sàndarma ma hmm. waaw boobu la boobu lañ boobu lañ leen gëj di gis. Hmm. waaye gisuma ko dee gisuma ko tiire. Hmm. gisuma ko man man man kër gi kenn yoru fet fetal kenn yor fa arme bu fekkee jikk ko gaañ ko gaañu ci ay jaas yi daal loolu moom mënu ma ko du ma ko wétti mm-hmm. wante arme fetal mm-hmm. moom moom moom moom du ma nga séeréer la nag gisuma. Mm-hmm. Uh-huh. bi ñuy ñëw waxuñ ne ndigal lañ moo leen moo leen yëkkati wala waxuñ ne lenn moo leen yëkkati. daal wax waxuñu dara dañu engagé kër gi rek ñoom xeex moo leen indi woon. ñoom daal daa mel xeex moo leen indi woon. ay yenn façon oto lañ yoroon ba mën cee yëpp cinquante xar. mën koo dem ak moom oto oto moom xam nga ñun génnu kër ñoom ca biir ñax ma laa leen gaare hmm. mënuma fee wax ne oto oto nangam marqué nangam wala peinture nangam moo ci ne te teguma ci boot teguma ci boot mënuma jàppuma lim oto yi hmm. jàppuma ko xam naa daal liñ fi sotti ci nit moom hmm. ñoom moom moom bu doon sakaar sa mënu koo mënu koo yéenu loolu guléet la muy am ci village bi lu mel ni cas d'agression yi wala cas yu mel ni est-ce ñu koy seen nemmee ko fi lii moom lii moom lii moom tey tey tey la fi mos ame tey la fi mos amee waaw ah, wax tey la mos amee ñun moom xamuñu xamuñu xamuñu xeex kuloo xamuñu xeex ñoom ñoom moom jàmm rek lañ xam doon taalibe gi gini ñu ñee doon taalibe ñun ay ay ay murid cent pour cent lañ waaw waaw ay murid cent pour cent lañ léegi li nga xamante ni am na fi naka nga ko gisee ci wàllu sécurité est-ce que village bi am na sécurité lumière yi doy na wala sax am na loo xamante ne assainissement la pour ku mën a ñëw ci village bi ah, nga mën a gis nit ku toll fële ba mën koo identifier xam ne kii lii mooy lii mooy lii mooy ay tànkam. mënuñu ko mënuñu ndax ndax lampay moom ci biir kii kër gi ñoom ñoom ci biir fee fee fee foofu amul benn lamp foofu àll kese la. foofu moom mënuñ mënuñ ñëw fa niit ba ba ba ñu xam lu nit yor ak lu mu yorul. Hmm. foofu moom mënuñu ko xam ndax ci at kër gi moom dañ leen ko dañ leen génn kër gi spécial hmm. ñu ñu ñu ñu taxaw ñu ne leen nag euh, kër gi moom kenn du ci dugg wala suñu bakkan lañ ci teg waaw. amul ci jigéen ñi kuñ ci gaañ koo xamante ni dafa nekkoon en état koo xamante ni dafa am xale yoo xamante ni gaañ nañ leen ci wala ci jigéen ñi. jërëjëf xale yu góor yi dañoo gaañu moom. ñu góor ñett ñett ñett ñett ñett daal gaañu nañ ci. mais mm-hmm. ñu dem nañ hôpital kii mujj dem ak ah, jamono jànnatul demoon léegi la ñëw. gaañu gaañu yi nu mu mel gaañu gaañu yu am yu am yu am doole la. gaañu gaañu am doole moom moom koy deret bu sottee koy bee boo ko gisee da dangay da ngay jooy. mbubb buy konk cur. waaw bopp toj be mokk rub. waaw. mbokki internet Allô Sénégal lii lañ leen indiloon xam naa du ñàkk sama naataango bi bu amee ñaar ñetti question yoo xamante ni dina ko ci wéyal ñu daal di continuer liggéey bi. ayca jërëjëf mbokki internet yu Allô Sénégal ak Info 7 TV comme ni ko sama naataango waxee léegi rek ñu ngi fi nga xam ne fii la mbiri xewee ni ki démb ci guddi Euh, ñu ngi ki nga xam ne moom mooy kilifa gox bi euh, laaj bi nga xam ne dañ koy toftal ci laaj yi mooy laaj nañ la nga wax mm-hmm. ñoom bay Fall yi ne nga mi ñëw démb dañoo indi benn euh, matériel boo xam ne ci côté oto ak effectif bu bari boo xamante ni bu ñu nemmeeku la mm-hmm. ci loo xamante ni ñoom li ñu wax dafa am lu ñu doon topp mu nekk fii est-ce que c'est la première fois ñu ñëw fi et puis ñëw gi ñu doon ñëw fii démb yor benn maanaam matériel bu toll noonu ak njëfandu yu toll noonu est-ce que yaakaaroo ne am na loo xam ne mos ko club loolu moom loolu moom loolu moom man man am man daal man nag kër gi moom kër yaatu na moom moom buy nee buy man man moom moom xaw ma man moom ma ji xaw ma ji suma xaw ma jaayu ma jëndu ma ji suma kuy jaay waaw loolu moom loolu moom loolu moom dinaa loolu moom bu fekkee ñu ngi jaay man moom gannaaw lépp moom def mën nañ mën nañ ko def te yow doo ci xam dara waaw loolu daal la bi mbir mi xewee léegi jotoon nañu xabaar na yéen a ngi jokkoo ku mel ni Cheikh Mamadou Mountakha Bassir Mbacké xalif général ndax boobu ak léegi jokkoo ngeen moom ak autorité yi nga xam ne ñoo ne ci gox bi pour wax leen yéen mbir mi nag ngeen ko yëgee ak nan la demee dëgg-dëgg li xam ne yéen xam ngeen ko ci non Khalifa moom wax dëgg yàlla jokkoo wu ñëw moom moom ndax nag amuñu relation ba ñu mën koo jot moom autorisation moom moom bu buy wax bi fekk ñoom ñoom ñoom jokkoo moom ñun moom wax dëgg yàlla jokkoo wu ñëw moom moom jokkoo wu ñëw moom wax dëgg ba léegi jokkoo leen moom kilifa gi di Serigne Mountakha ak autorité yi nga xam ne ñoo ne ci gox bi ku ci mel ni maire yooyu noonu ginnaaw sànnar moo ñoom actuellement ñu ngi assisté bërëb ñoom fi ñëwagum. côté arrestation yi ñëw ah, côté arrestation ma ci suba ba mu wax ak ak may waaw ma ci kaw mooy kalifa Baye Fall kaw ma naan kaw ma leen. ñëw nañ ci yow. ñu ñu ñu ne ñoom ñoom kay ñu ne ñu ne ñu ne ñoom it yëpp yëpp fépp fépp la bi am ci ñoom la ak ak ci ma ne leen nag ñu ne génne nañ ñu ay fetel di di leen tiire man leen man moom ci suma fetel bu génn yaa ja bu fekkee jaay jaasi bu génn daal loolu moom man duma ko weddi waaye lu ci lu ci mën a génn bu ñëwul woon daa duñ gis lu fi lu fi génn. léegi ñu ne ki faatu fetal moo ko faat. man di xaw ma xaw ma xaw ma yoruma fetal gisuma ku sama sama ñi ma yëlif kenn yoru ci woon fetal. te bu fekk fekk ku ku moom daal ci àll bi lay lay lay di di di fetal ma fi ñaan ñoo fa doon tiiri xaw ma xaw ma ñaan la xaw ma ñaan lañ def jàppante. xar yi ñu fi jël noonu kan moo ko moom yow la wala waa kër. sama jërbaat ñoo moo ko moom. sama jërbaat ko moom rey na rey naa ci ñetti béy. ñaata nit lañ fi teg ñi ñaati yoon yaakaar naa démb yaakaar est-ce que matul fukk ak ñaar. yéen seen côté kese la wala côté Baye Fall am na ñu jàpp. na am na ñu ñu jàpp ñoom waaye xam jàpp mu lim bi moom. yéen ñaata leen jàpp ñett. non fukk ak fukk ak ñaar la. bon bon bon bon am na sappo di bon am na ñu ñu ñu Mm, ba noonu la. yéen ñi amoon côté gaañu gaañu ci yéen traité nañ leen ba actuellement ñu si kër ñu am na am na am na am na ñu ñibbi kaw ma mu ne day day def rajo kaw ma maanaam na léegi. tey boo amee kàddu yóbbu ko wax la message booy lancé waat kilifa yi ak ñi xam ne ñooy sa dëkkandoo yi ban ah, man man man man daal de ma ne moom nii nii nii ñu def moom. nit ñi def moom mu ñu def moom bu ñu bu bu nit bu fekkee kilifa moo leen yónni nañu jaar fi ñu war a jaar buñ jaaree fu ñu war a jaar jàmm jàmm jàmm jàmm mooy am bu bu fekkoon bi dem bi ñëwee laa laajte na ma ñu ne ma daa am lu ma lu ma luñ fi wër man dinaa leen ubbil buntu yëpp buñ jisee mu ñoo ki ki ko ki ko yore buñ gisul jamono ñooya waane waane loolu yëpp defuñu ko ñoom dañu dañu mabba ci kaw kër gi rek ku génn nañu dóor ku génn nañu dóor lu ñu deful fii dem bu amul dégg nañ bi mbir mi xew yéen it da ngeen woo seen mbokk woo renfort nit ñi ñëw fi daje. loolu am na wala nu mu dem. am na bi ñëwee tu bi ñëwee bi ñu génn kër gi boobu la renfort ñëw fii lañ ñoo ñoo fanaanoo fii ba léegi ñu ngi fi. yéen lu nu meen am mu mel ni da ngeen seen bopp ndax lu nu meen amee police nga war a woo sa ngeen woo seen i mbokk. wala ñan ngeen njëkk a woo ñëpp la ñu woo poli woo ba ba mujj ba ba mujj ak daa am fu ñu jaaree moo ñu moo ñu woowal eh, eh, oxydrome bi boobu boobu boobu lañ soog a ñëw. yan heure lañ egg si fii. ay daanaka ay daanaka tuuti tuuti ay une heure yooyu kay. Mhm. boo fekk na lii xew xew. boobu fekk lu ci bari kay fekk naa leen fi. ñoo ko defandal ñoom ba na ñoom ñoom sax dañ leen a teewoon. ñoom bàyyi fa bàyyi fa dañ leen a teewoon dañu woon dañu woon force force ñu ñu dugg kër gi. dañoo forcé Baay Faal tey bu bu ñu tiri woon ay ay garanaat boobu bon ay lacrymogène moom moom moom ci dara. Hmm. ñoom police bi ñëwee dañoo def intervention rek amut kenn koo xamante ni jamono jooju ñuy ñëw booba mu ngi ci kër gi ci Baye Fall yi maanaam ci entrée bi lañ nekkoon mu mel ni am na ñu ne wax ne booba yéen a ngi ci jàmmaarloo yoo xamante ni ñoom police sax dana amoon jafe-jafe ngir ak ci ci bërëb bi fi nga xam ne fa la mbir mi doon amee. policier moom bi ñëwee bi ñëwee policier moom bu ñëwee booba li fare ci man moom booba laale leen laa leen laa leen gaari ñoom ñu ñu toog ñee ñee ñee baari ña leen far ci kurwa waaw boobu booba daal la commencé am jàmm. ba yenn heure lañ fi jógee ñoom Baye Fall Baye guddee nañ fi boo kaw renra bi daal guddee nañ fa lool xaw ban heure lañ dem na waaye guddi yàgg nañ fa lool ñoom ñoom ñi bàyyi àndoon ci Baye Fall yi xamoo ci kenn koo xam ne ci kilifa yi nga xam ne ñoom lañ dénk euh, liggéey bi mu koy jiite ndax ñoom saare bu ñu génn équipe bu nekk dafa am ku koy jiite chaque jour dañu am kenn koo xam ne mooy jiite xamoo ci kenn koo xam ne ñëw na présenté xaw kaw ma ci kenn kaw ma ci kenn mënu ma moom moom daal moom daal moom ñoom bi ñu ñëw ab ab ab ab ab ab ab nombre bu ma re lañ sotteeku ci kër gi ñoom ñoom waxuñ waxuñ njiit waxuñ dara de ñoom xeex moo leen indi woon mais ñoom dañ ne dafa am ñu ñu toppoon ñuy jaay lu nu mel fii bi ñëwee pour teg leen loxo ñoo ñu fépp génne ay fetal jaaruñu foofu de jaaruñu foofu de man man man ñun ñoom dañu jékki-jékki rek ñu sotteeku ci biir kër gi toppuñu kenn toppuñu kenn ma wala wala man man man gisuma ko man gisuma ko gisuma ko gisuma ku ku ne ku ne topp nañ kenn. jërëjëf ñu bàyyi baax na jërëjëf koy salaam. fàttali ñu seetaan tur bi kat. Alaaji Dem. nekk chef de village Thiay Fall